koo xam ne ni yaa ngi dégg wax ji nga itteel farataal bu baax raxasu bi saa su ne bu soree sori ñaari waxtu yu ne nga seet sa bopp raxas say loxo saa yow laalee caabi buntu wala poignée wala nga laal lu jëm ci bërëbu yu ñuy seerloo yu ñuy seetloo nga raxas say loxo ñi bàyyi xel nag ne cet gi rekk doyul nanuy dàndante di moytu lépp loo xam ni nii mooy jëm ci laal sa bakkan wala nga laal sa gémmiñ mbaa nga laal sa bët te saa yoo jëfandikoo dara nga raxas say loxo waaye nag li gën solo mooy ñu wax ne nañu fexe ñun ñëpp ñu musal ci mag ñi képp koo xam ne ni am nga juróom benn fukki at jëm kaw gën a la bëgg sa bakkan ñi la koy bëggale waaye ñi ñooñu jaboote nañu gën a wàccoo ak orme ñeel ñooñu ngir sàmmale leen seen wérgu yaram parce que feebar bi ñi mu gën gaaw lor mooy ñi néew kàttan ñi ànd ak feebaru wala kurfan wala nga musam am feebar yenn yi sëkkat wala nga am sinusite wala nga am drepano wala nga am feebar yo xamni moy maladie chronique lolu itam kuko am sa keur mbaa nga am ko sa mbok nang ko bàyyi xel bu loolu weso ñabot gi xale yi yalla denk ñu ñun ñoo leen wara saytu kenn ni ñu suñuy wéyjur seen saytu won ba ñu màgg su école yi fermé ñu ne xale yi nañ toog yàlla na fi yàlla gaaw génne jàngoro ji ba xale yi dem jàngiwaat ngir mën a am capacité wu yore réew mi ëllëg waaye xale yooyu nañu leen di nemmeeku nañu leen di